asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 2 novembre 2020 ñoo jël yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy tey doole te ko mel ni ki yëglikaay ba nag moom tey ñëw na ci li nga xam ne nii moom mooy li olof di wax rek lu dafa wax lu aay di njàmbat mel ni ki nag mbir mi fi am léegi ñu koy coow ci làmb ji mooy làmb ji ki koy jiite maanaam CNC bi maanaam daal kay nekk ca bopp ba war a doxal yëglikaay bi nag nee daal ci ay yoo xam ne xam na ko moom wala gëstu yu lijjanti wër ko ba am ko daal daa mel ni ñaar ñooñu daal boo sàgganee danañ ci dénk kenn wàllu olympique ba moom ka nga xam ne nii moo di Isabel Aminata Samb daal la ñu yaakaar ne mooy doon jigéen joo xam ne dina ko jiite mel ni kon daal jigéen ñi moom nar nañu daal ñëw bokk ca biir la nga xam ne nii moo di mbir nag doxal mel ni keneen équipe a àllal bu jiinu jëm daal ca lañ ko fas yéene nag daal moom la xëy wan ci xatam mu njëkk leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci wala beneen fédération boo xam ne daal bokkut ak bu Sénégal waaye bu Gambie la mel ni ki nag lambi Gambie moom fédération ba nga boo xam ne daal sénégalo gambien lañ koy wooye muy jamaïcain jam na nañ daal fi mu nekk nii moom posé na candidature ngir fas yéene nag jiite la nga xam ne nii moom moo di lambi Gàmbi mel ni ki nag yëglikaay bi xëy na samp laaj ne ndax moom candidature am booba des na ko valider wala déet ndax lañ cay laaj bokk na ca critère daal nga nekk doomi gambien 100 pour cent maanaam yor nationalité gambien ba ca des mooy itam nga def ay banque maanaam daal jàng ba mën a liir ca la nga xam ne ni moo di moo tax yëglikaay ba am njàqare ñu laaj yépp est-ce que matal na ko ngir war a mën a jiite la nga xam ne ni moo di ca lamb ja nga xam ne mooy lambi Gambia ñii moom seen combat yëg likaay bi ñëw na si tey ak adversaire yi nga xam ne bokk nañ ko muy Tapha Tine ak Boy Niang yëg likaay bi ne daal jàppale bokk nañ ñeenti adversaire muy Sa Cadior numéro 2 Zos Guy gi ak Lac de Guiers numéro 2 waaye ku ci nekk daal ba nga ko bokkee sa morom nañ ca génne ci ay résultat maanaam daal léegi likaay bi jàpp ne du benn ndax ka nga xam ne nii moom moo di Sa Cadior numéro 2 Guy gi ak Zos ak ka nga xam ñoom ñoom daal ku ci ne Tapha Tine daf laa daan Boy Niang numéro 2 nag dafa ci kanamu Zos perte tamit ci kanamu Lac de Guiers waaye itam daan na nga xam ne moo di Sa Kajoor ak ka nga xam ne moo di Gouye Gui yëglikaay bi di làmb xëy ñëw ci ñaari mbër yooyu ñëw na tamit ci seen alif xam ne nii moom moo di treize victoire li nga xam ne moo di cinq défaites Boy Niang treize victoire ak la nga xam ne nii moo di trois défaites yëglikaay baa xëy ñëw ci lu mel ni ki noonu ñeneen ñaar ñoo xam ne yëglikaay bi xëy na ñëw ci ñoom wala boo koo xam ne ñëw na ci moom muy ki nga xam ne moom moo di Diène Kaïré ak jàkkaarloo ba nga xam ne war na ko seq ak Moodu Anta testam bu réeréeréy maanaam daal ak nattam mën na boo xool boppam ci combat bu mag la jëm moom mi nga xam ne moo di jën kay yëglikaay bi ne boo bëggee dégg a di jën neuf bu dee Moodu Anta moom moo di quatre défaites yëglikaay bi ni suñu làmb xëy tey ñëw di ndil ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki daal kon foofu moom ab différence jot na fa am donte ay adversaire la wax xam ne daal yu war a bëre lañu waaye ka nga xam ne nii ma daal moom moo di ministre Matar Ba moom ginnaaw ba nga xam ne nag moom tegaat nañ ko ca daal maanaam dalal nga xam ne moom la doon dalal waa làmb ji day continuer di am ko 26 ans xam ne nag yëglikaay bi ne na nañ ko làmb ji maanaam Alioune Sarr équipe am maanaam ci biir 26 ans yooyu daal ñaar fukki at ak juróom benn am na ay départ am na ay ñëw maanaam mbir yoo xam ne daal ay dem ak ñëw yëpp bëri na ci mu xëy ñu wan nag Pape Mayel Diop ak Abdou Badji ma nga xam ne ku ci ne am na loo fa jot a def am roi Sarr tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom itam ak la nga xam ne ni daal moom moo di jiite nga xam ne jiite na ko équipe bi ak itam taxawaay mel ni ki maadu moom ay mbirëb du am am yëngu-yëngu fa nga xam ne nii falatoo bi wat ba tey bu nu continuer def ci Leewtoo point lan fay fekk nag moo di Saliou Diouf mu nga xam ne moo jiite amal daal muy nit simple ba daal amateur yi moom nag daal la muy naqar bi na ba fii ñu koy waxee nii daal mataar ba dara lagu leen te jàpp nañ ne ñoom itam gàtt nañ lool wala boog li olof naan mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk ndax ñoom itam am nañ xalaat ci lamb ji te itam wax nañ caa joxe la nga xam ne nii moo di seen xalaat buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di record record nag moom fa mu xëy ñëw tey génn ci diggante Papa Sow la ak Siteu ñuy joxante ay loxo yéeg liggéey bi dégg dëgg moom ku ci ne yaa ngay rey sa bopp ca din di ko sa morom ku ci ne yaa nga ca din di waajal sa bopp yéeg liggéey bi tamit yemu ca moom record ñëw na ci ñi nga xam ne jàng ne Matar Ba daf leen a fàtte wala boog lu xew muy wàlli simple bi ña nga xam ne daal mu mel ni ki ñoom dafa dañ leen a war a dañ leen a ignorer wala lu xew yëglikaay bi ñu la ko war a xëy ñëw tey laaj ñu wala boog mu samp boobu laaj yëglikaay ba moo samp laaj bi waaye loo ci mën a dégg daal xaw ma ignorer xaw ma bañ a laaj waaye yàgg maar daal ministre bi la muy def am na solo na ko continuer daal laaj ñëpp ñi mu war a laaj ndax nag ëllëg day ñëw te ëllëg bés la te yaa ma ne woon wala maa la ne woon dadul wóor waaye bu ku ne joxee sa xalaat maar su bureau taxawee lay day daal di jël liggéey dong moo fay daal asalaamaaleykum wa rahmatullah donc internet yi Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag lundi ni ngeen bi tey fi ñu xëy woon nag ci xëtamu njëkk yaxi jób yéegi nii Khalifa Sow ak ñam mooy Isabelle Sambo wàllum lam ji nag ku war a jiite yëglikaay bi daal ci ay gëstu jàpp na ne ah, benn DG lay doon boo xam ne DG wu société bu mag lay doon waaye tamit nekk na koo xam ne nii waajooju daal ku bëri xaalis lay doon koo xam ne nii daal maanaam problème xaalis moom amu ko ah ñun nag la ñuy ñaan mooy bu ñëwee kon daal noonu mu def ba am xaalis ba sa jiite société yàlla ne def ba gën a yokk làmb yi mu gën a kawe kawe kawe loolu daal la ñuy ñaan loolu yëg likaay baa ko wax nee na DTN ba nag Khalifa Sow la ñu confirmé waaw moom defe naa yàgg na ci biir mbir yi defe naa bu ñu ko confirmé itam ah lu yàgg ci njaw di njaw Khalifa Sow yàgg na ci làmb yàgg na ci mbirum arbitrage ak yooyu kon bu ñu ko fa confirmé day baax li simple entre Manga ak Yékini ñoom ñaar dama naan ku ñu ko ci baax na muy Manga muy Yaxya parce que ku ci ne am na lu ci làmb marqué nga sa empreinte ci lamb defe naa ne Manga 2 ah kenn dootu ko kenn du mën da wax lamb Sénégal di génn ko ci impossible ndax lu mu fi def la loolu mooy di am yaxey jóg yi ki ni waxaale wuñ ko roi des arènes toog ay at yu bëree bëri daamu championnat maanaam Sénégal yax yi wane na lu ne tas nañ fédération sax ba Niger kon kooku bu ñu ko déggee li simple itam des na ci am yaakaar ak Fata production mu yor ko di tëgg ay lamb Manga Manga production kon ñoom ñaar bàyyiwuñu lamb rek dem retraité toog mais dañ ci ñëwaat di ko dundal Isabelle Samb ci lutte olympique bi ba tey loolu su amee lu war a mën a nekk la parce que pratiquer na ko te itam boo pratiquer mbir ba pare boo ci xam-xam buñ la dénkee nga am entourage bu baax war la ko mën a doxal te itam loolu dana gën a baax ndax jigéen itam ci la ñu bokk waaw te itam dañ leen ci war a mën a dugal waaw mu mel ni ki daal kon nouvelle équipe bi daal yaa xam ne ni mercredi bii daal danañ ko génne teg ko ci taabal bi keneen koo xam ne ni moom fu mu bëgg a jiite ab fédération mooy ca Gambie muy Jamaïque di promoteur di xale mu tam nekk promoteur boo xam ne macha allah mu ngi jéem naan fi nekk nii nag xelam daal la ca ne mooy jiite fédération gambienne ba ca wàllum làmb moo tax yëglikaay bi sampab laaj ne est-ce que loolu mu bëgg dina mën a ne c'est possible ah waaw war na mën a ne waaye yëglikaay bi la ko ci jaaxale na maanaam Gambie il faut nga nekk une nationalité gambienne mën a bind seen langue jàng nee na loolu il faut nga def ko pour nga mën a jiite fédération gambienne loolu nag est-ce que jamay matal na ko loolu nag su ko matalul moom yaakaar naa moom du mën a sotti ak leneen loo xam ne ba tey yëg liggéey bi da caa ñëw mu diggante Tapha Tine ak Boy Niang ak seenu ak adversaire yi ak mel ni ki ñoom ku ci ne bëri nga ak ñooñu waaye nañ ca génne moo bokkul ndax ki nga xam ne moo di Tapha Tine dafa daan Sa Kajoor daan Zoss daan Gouye Gui waaw leen waaye ki nga xam ne nii nag moom moo waaw moom Tapha Tine loolu def na ko daan adversaire yooyu muy Tapha Tine muy ki nga xam ne moom mooy Sa Kadio numéro 2 Gouye Gui ak Zoss ku ci ne daf la daan ka nga xam ne nii nag moom mooy ci kanamu Lac fa la Tapha Tine ñàkkee bu fay itam mu mel ni Boy Niang dafaa ñàkk waaye Boy Niang ba tey Zoss da daan Lac de Guiers numéro ba tey mu ñàkk ci kanamam waaye dafa daan Gouye yëglikaay bi ñëw na ci loolu mu du anta ak ay ndamam yu bëri diggante mag jéen kay rek yëglikaay bi moo sampab laaj ndax jéen ndax match nul ak 3 défaites 17 victoire mu du anta 4 défaites mel ni ki yëglikaay bi jàpp na ne kon jël daal test bu rëy rëy moo koy xaar mel ni ki nag ah, mu jël du anta xam na ko taxal la am na fu mu a yoo xam ne kon seen bu nar a xat la nar a gis Matar ba ak ñamiy dara mu mel ni ki waa lamb simple ba jàpp nañ ne ba tey gisaguñ leen ca buñ dema Leewtoo point net Saliou Diouf mu ko fay wax ba day record ñëwaat na ci ci ñoo xam ne daal est-ce que du ignorance wala yu mel ma jàpp ne daal ministre bi moom mu ngi dalal gaay yëpp mu ngi dalal wàllam xëy na seen tur mooy excès waaye man Babacar li may wax mooy mbir mi est ñu dalal la wala ñu bañ la dalal pour man ñun ñëpp nañu nekk rek jàpp ne ministre bi ka mu dalal wax na sa place man loolu laay gis parce que dama jàpp ne tey ñi ma gis ñuy dalal ñëpp ku boo demee defe naa da nga défendre projet wu làmb mais demuñu pour xëy na pour toog nii kon yaakaar naa waaye nag terewul ku ci ne ministre war na laa mën a daal ndax wàllu simple ku bokk ci gétt gi naan ci réew dañoo bokk ci mbir yi nañ leen a a woo laaj leen seen xalaat ñu joxe ko comme ni ko ñëpp defee muy promoteur u simple ak amateur u simple ak ku ci mën a doon parce que gis nañ amateur u yi woo nañ leen jeune amateur ñëpp woo nañ leen ah waaye Matar Ba ñun li ñu xam si moom te man Babacar du ma ne kenn yàlla nañ ñu di gisuma ko jamais au grand jamais xam naa ni ku ubbeeku la te itam li muy def nii c'est la première fois ci ministre bi di ko gis kon yaakaar naa loolu mu gis ba di ko def ak ay conseils yàlla na ko yàlla dimbali ko mu réussir ko ba équipe bi ñëw daal réussir lamb 100 pour 100 comme ko bëggee di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñaan ñëpp jàmm tey nag ni ngeen ko xamee lundi la 2 novembre 2020 bu ngeen gisee maillot bi ma sol nag kenn na fi jaar la xam nga Real moom li ma wax rek boo ko waxee day gis waaye mooy équipe ci àddina bi des yëpp ay équipe bu ASC lañ rek équipe bu quartier waaye xam nga équipe bu mag bu toll ni Real ak capitaine bu toll ni Ramos mu solal ma ko nii ah félicité supporter Real yëpp mais di encouragé waa Barcelone suñu wujjooy nga xam ne éternellement suñu wujju la ñuy doon waaye nag ku la suddee ko way jol bi rek noonu la demee mais di wax mention spéciale sama rakk sama xarit Lamine Seck Lamine ndékk bi ñëw na gis naa ndékk ndékki naa dinaa ndékk bu jënd kër yow kenn du yow borom nit TV yàlla na sa jàmm yàgg di la wax yàlla na barke yonent bi ba ndax kooku man maay joxe guro gi sax loolu moom maa la ko wax maay joxe guro ga maay la cay def la dem maa koy ndax nag yàllaa ñu boole maa ak yow te loolu dëgg ko lal kon yàlla na ko yàlla sàmm barke yonent bi sallallahu alayhi ngi lay bëgg bu a baax matu jaxum ba naaru kajoor bi naar darmam kë bi ah matu abdu pudos yàlla na sa jax jàmm <laughs> yàgg nekk naar nag daan neex ndax xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa ngi naar la ko yàlla ne alxuraan yàlla ci arab la ko binde te itam Serigne Touba ku ne xam ni tiiram ci arab la ko binde maam Maodo noonu keneen noonu kon defe naa arab lu barkeel la yàllaa ko tànnal boppam te nag yàlla bu nee waaw mu ni déet la effacé ba pare doog a defaat leneen kon yàlla ñu yàlla defal jàmm kontaan ci ñëpp léegi yaatalal ndékki bi dafa <laughs> yaatal